jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax fii ñu nekk mooy auto école leader nga xamante ne mu ngi ci jëppal ñu fekk fii Big Pato ñoo bëgg a waxtaan ak DG bi ci auto école bi nu muy doxee sëñ bi noo def. ñu ngi lay ziar waaw di la nuyu bu baax di leen dalal jàmm yaag sa technicien. waaw tur bi nan la. Euh, Pape laa tuddu waaw donc euh, ñu ñooy gérer auto école leader fii si jëppal ah, ak euh, Medina. donc euh, donc loolu la Pato moom sunu sunu sunu jarbaat la. waaw sunu jarbaat la. waaw parce que jarbaatu Akan Ousseynou Lo la mu bokk si ñun. waaw moo tax ñu kontaan di ko dalal fii nii. waaw. ci oto école leader ñi nga xamante ne dañoo mel ni man mënuñoo dawal bëgg permis buñ ko bëggoon nu ñuy def am ko. waaw loolu moom amul problème parce que ñooñu sax ñooñu fi taxal toog ñi nga xam ne mënuñu. donc euh, képp ku fi ñëw incha allah euh, di nga am formation code bu baax formation conduite bi bu baax donc ñoo lay suivre ba keroog ngay jot sa permis waaw façon permis yëpp nag du oto kese am na moto am na poids lourd am na transport ah, am na léger am na ay cour perfectionnement tamit mooy ñi nga xam ne dañu am permis dawaluñu donc bëgg a perfectionné wu ñooñu ñëpp amul benn problème képp ku si ñëw rek incha allah euh, di nga kontaan quoi hmm. waaw. waaw bu fekkee man dama amoon dawal ba pare amuma permis bu ma ñëwee fii nu muy demee. waaw loolu aussi dañ koy def bu fekkee comme par exemple euh, changement permis yi am nii donc rendre nañ compte que ni permis yu bëri ay faux permis la waaw ñooñ tamit bu ñu ñëwee dañuy reprendre seen euh, formation cote dinañ ñëw tamit defaat seen formation conduite après ñu suivre leen ba ñu am permis yu baax permis yu legal waaw permis yu baax waaw. lan ngay wax ñi nga xamante ne dañoo mel ni man. ñëw fekk sëñ Bas toog xamul ci auto école dara nga yëkkati deux cent mille ne ko damaa bëgg nga defal ma permis mu defal la permis boo xam ne jaarul ci yoon wala mu dóor la lan nga ko wax avec auto école leader. waaw loolu aussi mooy mooy mooy ñi nga xam ne rek dañu bëgg facilité parce que am na benn somme boo xam ne même boo amoon demi million tamit ñëw bëgg permis semaine prochaine loolu mënul nekk parce que permis dafa am ay étapes da ngay ñëw jàng code nga dem defi examen code soo paree nga def sa formation conduite dem defi conduite après toog xaar sa permis pen mais yor sa xaalis tey tey tey mel na kon ku nekk si boutique ñëw ne permis laa bëgg ñun machines yi ñu yor fii duñ fi tiire permis donc service des mines ñoom ñooy gérer affaire u ñun formation volet formation la ñuy dem ak suivre la accompagner la ba keroog ngay am permis donc comme ni ko Pato waxee minimum minimum quarante cinq jours lay def mooy formation code conduite ah après nga soog a toog xaar sa permis waaw. code bi ci ñaata weer nga koy def ak conduite. lool loolu ça élève bi xam nga nit ki mun na neex xel si deux semaines mu ñëw maitriser code bi am na ñoo xam ne il faut nga tey leen un mois ah, am na ñoo xam ne dañ siy def deux mois xam nga pour soog am code. waaw sa dépend si si si niveau intellectuel u élève bi parce que nit ñi bokkuñu. am na ñoo xam ne dañuy jàng vite am na ñoo xam ne il faut nga jël ak ñoom temps pour que ñu jàng waaw. donc ñu lay jaajëfal. merci jërëjëf ñu ngi leen di gërëm bu baax aussi waaw di gërëm aussi équipe bi quoi équipe bi nekk si auto école parce que du man kese quoi donc sunu doyen ñi ngi fii xam nga moniteur yaa ngi fii. ah ak sunu ñi ñuy accompagner ak yëpp ñu ngi remercier tout le monde di leen remercier aussi bu baax quoi merci beaucoup. jërëjëf mbokk yi bu leen ko fàtte auto école leader la fii la nekk ci jëppal ñu leen di jëfal ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu am kontante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii nag ci auto école leader certifié kenn koo xamante ni li ma jaaxal mooy. nekkul ci auto école bi wala liggéeyoo fa waaye saa soo ñëwee fekk ko fi dinaa ko laaj affilité ban affilité la am ak ñoom lan moo waral loolu muy champion boo xamante ni euh, Big Pato la kenn du ko notable ci làmb wala kenn du ko présenté benn mbër ma nga ci attaaya ba macha allah Big baa lay ziar. <laughs> maa ngi lay delloo ziar leen nuyu ginnaaw bi ñu sant yàlla jul suñu gën suñu ñaari waajur di dalal la aussi dalal sa xarit bi nga àndal borom sañ Basiru di wax ni dalal ak jàmm yaa ma fekk foo xam ne moom sama kër la sama bërëb ñoom nijaay ñoo fi nekk. Mm-hmm. effectivement dama fiy fréquenté su ma liggéeyul parfois dama fiy jaar. Mm-hmm. li tax ma fiy jaar xëy na ba ma laajee naa la ko wax ci kanam. Mm-hmm. mais nag ana ki noonu du ma naan café du ma naan kii jos maa ah, ngi naan ataaya <laughs> ah, ko vaar. xam nga du ma naan ataaya ñëpp xam nañ ko mais dañ ma yóbbu vaar moo tax xoolal du ma tox du ma naan café du ma naan damay naan ataaya. <laughs> bi ma doon mbër yëpp ngay sànni xeer waaye euh, lan lan moo la dugal ci làmb avant Big Pato lan lan kan mooy Big Pato. waaw ginnaaw bi ñu yoon nii Big Pato dafa nekk benn jeune sénégalais bu juddoo Mbour Petite Côte bi te képp koo xam ne Petite Côte xam ne ñun buñ mosaan a jàng ba wàcc wala ñu am récréation buñ fubalu dañuy bëri buñ jàngul aussi buñ demee géej buñ fubalu dañuy bëri. yàlla aussi tef mayit ma doon mbër ci sama làmb sama maam booy kii jur sama yaay sa alaaji Saliou Diop nekkoon Saalum li may wax maam Ousmane Lo bi nekk Colobane xam na ci dara Pa Mor Ndiaye bu weereyaan xam na ci dara ak ñoom maam Mansour Lo yàgg nañu xam ne dara. ma aussi màggee tamit ci keppaaru Bombardier le roi des arènes ma koy salué au passage nga xam ne nii aussi ñoo yarandoo moom moo yar mu nekk ko xam ne ni kenn dootu ko présenté la làmb double roi des arènes. kon tey su ma ñëwee dugg ci làmb warul jaaxal kenn parce que làmb bu ñu fàtte ne mooy suñu cosaan démb rek maa ngi wax benn kilifa naa ma non mënoon nga def karaté aikido ma nekk ban karaté dama dama di chinois wala dama de coré coréen bay def karaté lu tax may karaté ak taekwondo mel ni ko amul cosaan sama cosaan gi sama maam bi bàyyi dinaa ko fi bàyyi may dem def leneen du ma ko defal kenn sport bi ma ba def nii mooy làmb mooy sama cosaan moom laay def parce que li ci des néew ma je suis contre les autres sports mais li nga xam ne moom la sama maam bàyyee moom laa fier di ko def parce que man administration laa nekk te administration terewuñ ñu musique terewuñ ñu sport boo xoolee da ngay gis musicien boo xam ne day nekk administrateur civil nga gis administrateur civil di def sport bu ko neex bu la neexee nga def taekwondo karaté football nga nekk arbitre maama jeeju dama koy cité waat colonel de douane la woon tey boo demee AS douane ñu ñëpp moo nekk euh, président tey loolu exemple la ngay dem colonel Issa Ndiaye aussi muy diriger foofu nga ñëw police général la moo jiite AS police c'est-à-dire que de tenue yi ak force de défense la waa de sécurité yàgg nañ ci ji def sport. mais làmb nag moo nekk par particulier te naa xam benn affaire Manga de mii daan bëri dafa nekkoon inspecteur commissionnaire nekkoon police di fa incarné comme moniteur Robert de Diouf bu mag ba papa ñoom Amady Ndiaye ak Abdoulaye Ndiaye aussi dafa nekkoon police comme moniteur kon tey ñun police bu ñu ñëwee defal làmb dañuy feddali kóllëre rek gën a wane aussi bopp lëkkale gi ñuy bëgg a lëkkale askan wi ak alkaati yi gën a jege xale parce que woon na Ama Baldé guy gi seen xeex ko yàlla muy amati Yékini Balla ndax mbëri war nañ mën a ñëw ci bëree bi am nañ mais barki dem mondiaay gis nga waa presse café invité ma maa ngi ñoom Boubacar ñu dem face à face ba pare kenn coowul kenn deful dara te yaa nga fekk fi bërëb bu bu calme ata école mat yow toog fii pour te dire que mbër dafa bokk ci société bi dafa bokk koo xam ci ci société am ci kaddu kon dañoo war a xool suñu comportement ñu def ko parce que ñun ay sénégalais ñoo ñuy seetaan ay sénégalais ñoo ñu bëgg te ñun damay sóoraale waa diaspora bi sax du dama la ñoom dañoo nekk bitim réew te ñoom boo leen waxee làmb dañuy fier pour wax wax tam làmb parce que mooy suñu culture kon ñun dem dañu war war a image bi nga xam ne ñoom ñu nekk bitim réew bu ñu waxtaanee làmb dañ ciy fier parce que bëgg nañ di wane ay qualité yoo xam ne ñun moom bu ñu ko gisee ñoom bu ñuy présenté yeneen tubaab yi dañ naan ñun am nañ mbër buy police xam nga tey ñu nekk diaspora bi dañ ni damay wane booy te dama la woon benn tubaab mais tubaab dafa kontaan bi mu ma ko déposé bu bëri ça veut dire ñoom dañ bëgg dañ dañoo bëgg aussi def day day rendre suñu population ñu gën a fier daal ak corporation bi di gërëm aussi directeur police Ousmane Sy sama xarit sama papa ministre intérieur ak gouvernement bi yëpp ak sama chef de service Sophie Seck may défendre di sonn fu ne lay kii ak waa police APK ak CS4 ñi may rôle yëpp di wax ne làmb lañ am mooy suñu cosaan man de làmb jii fekk yàlla ak may may kattan même bu ma jàllee commissaire sax buñ ma bàyyi damay bëre commissaire buy bëre li neexul. nga nga nga dugg ci loolu euh, moom ak sa liggéey euh, est-ce que ànd na. dama ne sport passion la du liggéey foog nit ñi xamaat loolu. passion n'a rien à voir ak métier. man dama nekk koo xam ne dama gëm sama bopp gëm sama cosaan sama cosaan mooy làmb du ma yàq dara sama liggéey mooy sama heure liggéey damay liggéey sama heure liggéey damay liggéey bu liggéey bi jotee nag temps bi may ma ko ma dem entraîné ji mais yàlla dimbali ma kon ko maa ngi koy def aussi gars gis ma nekkoon champion du Sénégal amoon na médaille d'or amoon aussi trophée meilleur lutteur ñu xam ne résultat positif am na gars ma service social ma fay liggéey mais service social aussi comme que liggéey administration la bu dul ñu def mission extérieure dem ci hôpitaux yi ba guddee chaque jour 5 heures dinaa wàcc wala 18 am nga temps entraîné kon ça veut dire que maa ngi mission Fatick seete woon ku ku tey jii ma waxee ne suñu waa service ñu ngi dem Koutal dem seeti benn malade ay ku ak ku gaañoon policier bi gaañoon ñu koy jaalewaat Mouhamed Ndaw ñoom adjudant yëpp ñu ngi fa def dem defal délégation dem teewal fa directeur pour que di dara bu ñuy entraîné day fekk ñu liggéey ba pare bu ñuy bëree day fekk ñu wóor nañu bëri bii nii yàqul dara ci service bi waaw. kañ euh, commencé njëkk a sa combat arène. man 2011 laa commencé bëree police officiellement. Euh, di dem mbapat di bëri daante gaay ba am ci benn médaille mais deux 2017 laa njëkk a bëri ak euh, arène ma bëri ak combat bu ñu wax Boy Baol numéro 2 booy Baol moom kenn dootu ko présenté moo nekk Dóor Dóoraat te jàpp gaay di wulli gaay yi ci mbapat mi rek. Boy Baol mu naqaree bëri ak bëri ah, doole. mais moo demoon Mbour def lu rëy. final moom ak Franc. waa combat boobu nag moom ma lancé parce que man xam naa ne làmb ji ñu bëri damay fo mais nag foo tax ma cee jóg qualité wóolu ci sam bopp xam ci sam bopp moo tax ma koy def man su ma doon def beneen affaire bi nga xam ne ni ma koy def di ko gërëm parce que tey moo may sens bii ma am nii tey ma koy wax ni yàlla na ko yàlla defal jàmm ne woon naa ko bëri ba pare mais li des sa carrière jàmm rek nga ciy am incha allah rabbi mhm. waaw non mën naa ko daan yaa daan Boy Baol. maa daan Boy Baol numéro 2 waaw. mais loolu loolu garaaw na de nga jóge ci Boy Baol euh, am kan. ma am teg soog mooy combat bi nga xam ne dama ba ma ko mbotti mu teg dënn bi arbitre juum moom lañ def sama verdict xam nga loolu sama victoire yàqal nañ ma ko foofu waaye tamit yàlla hasard amul parce que man dama ñëwoon di woote non violence xëy na su ma bëri woon ba pare. te aw ma jafe-jafe ci làmb kon sama message du am njariñ bi mu war a am tey kon dañ naan nañu may suñu jàmm parce que bi ñuy bëri ba léegi mi ngi daan mais xam nga bëre combat bu rëy ba préparé ko indi mille mille billets lañu indi ci ci ji keroog mille supporters. déggoo de jënd làmb deux millions billets. sans compter dix cars yu jóge Mbour ak dix cars yu jóge Dakar muy vingt cars ñu dugal ko stade sans compter yu jóge école école keroog grand combat la mooy indi xaaj bi xaajaat bi xaajaat bi néewuñ ko. yàlla natuñu si loolu nag ñu ànd gëm yàlla ku mel ni chef Zal Ndaw ak commissaire Ousmane Gueye bu école xuloo ñu xeexu ñu ne lii moo ñu indiwoon si làmb xeex violence nañ calme fecc ree génn dem def suñu recours ci lañ defee recours gars yi kase verdict def sans verdict mm. te loolu mooy wane gis nga yàlla lu def rek am na lu tax parce que xëy na non violence bi ñu doon woote moo tax yàlla teg ñu natt boobu deuxième combat mm. mais xam nga parce que bi ma ko jëlee <laughs> <laughs> damay soxor ci bëri parce que parfois dama bëgg yenu ba ci kaw dóor ci suuf mm. taase ma ñëw nag xeeb ko ni kii daal comme daal ma woo ko ci xel ni bëre na ma ne xanaa ma song dóor rek may song nag ma mu suruxal ma parce que bërekat la effectivement yàgg naa bëri bëri woon ak wulli ci laa jógee nag combat nag ne ñëpp ko doon xaar wulli wulli waat borom jooy moom nga fu ne toog na fa jooy naan yàlla damaa julli damaa jooy yàlla léegi nag comme que wulli moom i dafa wax woon yàlla man appel solennel boobu xam nga <laughs> solennellement boobu ah abal na ma ko man tamit maa ngi woote solennellement <laughs> na ma ñëpp wuyu borom bi Maolana tabaaraka taala maa ngi lay ñaan combat bi may jëm si ak Alaaji Mbay nga ma wes ndam parce que waa police dañoo soxla ndam homme de tenue soxla ndam waa Mbour Géej fan club Big Pato soxla ndam auto école leader bi nga xam ne sama auto école nijaay la ma fiy ñëw di fi joxe exemple di wan gaay yi ne nañ uti permis ñi dañoo soxla ndam ñun tamit waaw. nga jugee ci loolu jóge ci wulli euh, jël Alaaji Mbay lan moo la dugal lan moo la dugal ci Alaaji Mbay xam nga tey sport de combat sport de combat wala sport yëpp laay wax boo amul mentalité bu baax amoo fighting sport bi doo progresser amul benn sportif bu la ne damaa xëy réussir sama carrière euh, du début à la fin da am au des mais ñun bi ñu ñëwee ci làmb dañuy ñëw pour jàng nañ ñi mooy bu méttee gëmal sa bopp bu naqaree gëmël sa bopp bu neexee tamit gën a la góorgóorlu tey ñëw nañ premier combat bu neex deuxième combat bi xaw am jafe-jafe troisième bi naqari quatrième bi naqari mais ça veut ngay lase da ngay rëbu mobiliser waat àndaat ak say mbokk defar jiwaat fexe ñëwaat bu ma bëree ba pare ñëpp xam nañ li wax naan Big Pato xëy na dafa sàggane mystique bi ci combat am bi ñii ne masse bi dafa ndaw parce que bi mu dóorewul li jàpp ko làmb ji dafa doon jeex critique boobu nag ngay jël nga def ko de manière positive nga dem exploité ko nga dem liggéey war pour ñëw sama combat wul ñëpp gis nañ ni demee xam nga ne mbër mooy bëral doo ko ñaari góor duwaat song ko ñaari song mu dem génn saako naa ndox ñëwaat récupéré waat xam nga nante la keroog tamit mu waaye mu naa maam big dama la nax parce que bi dem defara jiwaat man tamit damay defara jiwaat xam nga alaaji mbay tamit dafa am enjeu boo xam moo ci am mbay moo daan wulli te wulli moo ma daan kon la ci biir da ko Eumeu Sène Baboy ñëw bëreeg Bombardier ñu ku ne ku nekk daan sama morom léegi Eumeu Sène ñëw daan Bombardier nangu roi des arènes bi man tamit maag Bombardier dañuy fanaanoo mer pour ñëw daana alaaj mbay pour wane waa Pikine ndam la ci ñun la war a mujj. Mm. te Bombardier fu may wax maa ngi koy nuyu au parce que combat bi bu mu koy wax kanam Alsane Samba Mbaye ak Mbaye Boy seen combat la dañ ci teg seen bakkan parce que xam nañ ni Pikine du daanaan ñu. moo tax combat bi dér bu garaaw lay doon parce que combat bi Modou Lo mi ngi sama ginnaaw maa koy nuyu au passage ak waa parcelle yëpp génération xarañ génération xarañ ma supporté ak waa Guédiawaye maire Alioune Sall boobu euh, na Cheikh Omar Foutiyou Tall ak ñoom Cheikh Seydou ma wax fa ay dara ak ñoom bii. jaaxal ci combat bi mooy combat bi dafa indi ñaari adversaire yow nga doog a doon ñetteel bi combat bi dafa indi revanche Eumeu Sène bi indi combat wu Modou Lo Ama Baldé waaw doonaat Big Pato Alaaji Mbay combat bi dama na combat bu garaaw a ngi nii parce que Bombardier du nangu Eumeu Sène daan ko Alaaji Mbay di ma daan te Bombardier Eumeu Sène xam nga ñu ngi koy waxtaanee waat mm-hmm. dama bëgg dogg la ci suuf saa waaye dogg la ci kaw Bombardier nee na mu am yëpp Modou aussi du nangu ma nekk xaritam nekk doomu ndayam ñu naan Big moom Modou Lo dañoo niroo ay seen wax yi dañoo xaw a niroo yëpp du nangu du nangu kii daan ñoom Tafa Buuju aussi ñu ngi ci combat bi waaw wow te combat bii ñoom Tafa Buuju ba ci wulli sax dama koy woo sama doomu nday ak ñi ko doon ñaanal yëpp sama combat moom maa ngi woo Kouthia Kouthia Kouthia combat bi sa combat la de Kouthia soo su Kouthia su maa ngi ñëw de ak ñoom non gis nga ñoom madame Dieng alaaj Abu Bilal sama sëriñ la ci combat bi daf may ñaanal tax du ma ko xeeb affaire la moo ñaanaloon wulli mu daan na moom alaaj alaaj Abu Bilal ku caa maa ngi koy woo ci combat bi na ma ñaanal damaa sonn defet baaxul police warul di daanu maa ngi woo nag waa police gépp nañ ñëw waa gendarmerie du ma leen fàtte sama xarit général Moussa Fall <laughs> moom nga faa leen bu am caractère la faa faa leen bu bëgg mën a liggéey ak sama papa général Wagan Faye mais nag papa combat bi sa combat la. <laughs> Big Pato Alaaji Mbay dem na Paris préparé ju combat am ñëw na bërki démb gis naa ko mais mu ngi ci état de forme boo xamante ne macha allah loo ne war nga koo xeeb ndax nee naa ko Big Pato nga mu ne ma ah prib dib la rek su ma ko jàppee mu gaaw su dawee mu gaaw bu bëree mu gaaw bu xeexee mu gaaw. waaye Alaaji Mbay simbukat la rek ambiance ko ne ci laamu ji nga xam ne lépp simbukat la day simb rek. waaw manul bëri ma day sóob rek. waaw ah, na bëre gis nga lim defoon ko cëb. waaw affaire sorxo sorxom yooyu mu ne c'est que xam nga. Ketchup dafa jëlee alaaj neex naa bëre gis naa ko. ay jëf ju moog seen combat mooy jëf jëfal bi ko jëf jëfal di def bagage yëpp seeraat naa la fi daan alaaj ah, mbay wulli rek la fi daan daan ki ma daan mi ngi def ay preuve ba léegi alaaj mbay daan kan moo ci continuer ci làmb ji. ana Ketchup benn combat boobu la fi Ketchup pare wulli boobaa léegi kan la fi wulli daanaat. waaw tegoon na la ci de. waaw yow waaw Alaaji Mbaye ñi ma daan ñi ma bëreel ak ñi Alaaji Mbaye bëreel. jàpp liiru jaan dóoree ko Gambie ba Sénégal. no xam nga man dama wulli wulli ba wulli génn làmb ji. ar vaar baa ngi fi bu la neexee booy def booy def montage bi nga teg vaar bi n'est-ce pas wulli dafa génn làmb ji. Alaaji Mbaye dóorul fi kenn fii am bëri bëriwul ak ay xale man ay xale laa fekk ñu teg man dama ñëw booy bawol 11 ans laa ko magee bi ñuy bëree xamul lu këpp même bëreeg moom maa ngi am ay trente quelque moom ay vingt pas teg soog aussi xale bu ndaw vingt ans ñu jox ma ko man ay booy rek laa bëreel man wuli rek laa bëreel koo xam ne ni moom mais ñi ma bëreel ñëpp ay booy lañ man damay ñëw jox ma ay moom ay paa rek la fi bëri ay aadama juuf nga ne sama xarit maa ngi koy sal yow passage aadama juuf nga xam ne léegi mu dem nationale ngeen suul seen tànk jàkkaarloo ci maar loo xeex xam nga man ñëpp xam nañ su may bëri samay gàllaaj bëriwul man kenn xamee mu takk ay ndomba bu ko neexee bu mu takk dara na ñëw ñu def ay ngemb rek ñu ñamante cinq secondes yoo cinq minutes yoo xam ne amul kii <laughs> na ñëw ñu ñamante mbëru policier laay bëreel te faw may moytu ndax mun nañ maa ramas sax dugal ma ci giri Ah, samay bagage toj boo tax damay moytu rek. li wax gëmu de day sóob ah, ah, mi ngi ba policier yi moo ko ñoom Pape Alé Niang ñooy ànd ñoom Moussa a miine man moo ko man fi mu doon sama xarit la mais mooy capitaine combat bi combat bi nii baal ba combat paas ñu doo gisante instant wóolu ma kenn hmm. waaw kon daal fi mu toll nii sa mbokk yi moom nañ la nañ la surveiller Alaaji rek. ba nga jàpp fi mu toll nii kay na ñëpp surveiller Alaaji Mbaye de gauche à parce que wulli noonu lañu fi defoon ndax ñu la man làmb moom dootuma ci kaf doot. sa jàpp na. non mystique c'est dans la tête de toute façon même bu mystique amee ci làmb xam nga lan laa gën a gëm mbërëw nañ daan yàlla may ne kon di ko ñaan yàlla wulli pareegu ma ci moom de. <laughs> yow man fii kenn ma daan di dem te di nelaw. mais Alaaji Mbay euh, boo jugee ci Alaaji Mbay wala liiru jaan koo ci am baax na surtout liiru. liiru moom xam naa moo ko jàppee laa ma ñëw bu rëy boobu. moom mu ngi ñëw ñu wulli ko ba ñu bëgg a dee mu ñëw di jaay wala wuli wuli jaan. waaw yooyu ah, naa naa dama ko moom jamul kenn wuli xaw na rey nee naa leen dafa nekk ci état ak yi xamuñ ko wuli dafa nekk ci confiance parce que dafa muy bëri man dafa am ndam gàmbi ñëw bi mu bëri man gars yi ko mais ay kilifa ñoo ko ñaanal dama koy féliciter au passage aussi tamit dafa jooy tey jooy bi mu jooy yàlla wuy si na ko niñ ko wax rek ni ko yàlla wuy see aussi na koy nañu wuy see mais Lirou Diane Lirou Diane wut <laughs> day théâtre rek na bàyyi yi def toog wuli jàpp ko dóor ko moom génn saago yi tëdd foofu di wax. bon su ma juumul daal mois de la Jax am parce que problème date dafa xaw sori mais Jax moom ku nekk xam naa xam nañ ci professionnalisme moom li muy communiqué ci làmb mais sax du day tëgg ay combat yoo xam ne ne bu ko tëggee ñëpp xam ne Jax tëgg na combat bu ñëpp soxla di ko nuyu au passage sama grand la parce que am na benn projet bu ñu fi doon def ba moo nekkoon sama ginnaaw pour jàppale ma bon tey ëllëg maa ñaan yàlla su ma amee yeneen partenaire aussi ñaan naa yàlla accompagner ko man den parce que doo ma gën a gore parce que dafa toogoon Euh, waa présidence bi ñu contacté moom moo amoon yéene pour jàppale ma ci 10 millions yooyu noonu mais yéeneem la amoon mais malheureusement xam nga Sénégal parfois gars yi li lay wax ak li am moo du bokk mais vraiment il s'était bien investi pour jàppale ma mais xam nga comme que dafa dugaloon xaalisam te li yaakaaroon sax amu ko ci dama koy masawu coono aussi di ko wax ni gannaaw fi nga jàpp foofu la fi nga teg sànq noonu te gis nga mu nekk ko tey ko daal ba léegi kenn déggul mu wax bu baax parce que yéeneem la amoon aussi di nga xam ne góor nga ko seqal te bu làmb ji paasee di xam ne góor nga ko seqal te bu jour combat bu aussi di xam ne góor nga ko seqal grand waaw. lan ban message ngay lancer mbëri en tant que homme de tenue boo xamante ni da ngeen bokk ci liggéey bokk terrain di liggéey ban message nga ak supporteru mbëri ak fans club. waaw li ma wax rek am na dama am fans club sama ma am fans club fan yëpp ñu ngi doon liggéey ci côté affaire violence bëgg démb rek ñu ngi di wax sensibiliser nit ñi si si violence bi ñu ngi ciy wax ba léegi di wax ni na mbëri ut métier xam nga yaa ngi ma fekk fii benn haute école nga may laaj loolu parce que dama damay encadrer nit ñi dama dëkk bëgg doxal dëkk bi aussi da nekk ci règle ah da ngay nekk en règle bul neex damaa bëgg nekk mbër rek dem bàyyi sa métier bàyyi sa jàng non non loolu ça ça pas man tey jii nii bu ma ñëwoon bàyyi lépp ndax làmb wala kii bu làmb doxal fan laa boo bëggee dawal oto yoro permis foo non doomu aadama da ngay jàpp ci benn affaire boo nekk ci dara rek pour ñu jàppale day yomb na mbëri gën a góorgóorlu gën a sensibiliser seen population bi gën a sensibiliser supporter ñu wax ni combat yi am fii neex na Papa Sow Siteu combat ko dàq Modou Lo Ama Baldé combat du ko dàq Alaaji Mbaye Big Pato mooy doon meilleur combat de l'année mais n'empêche nañu wax ak supporter xam leen ne ay doomu aadama lañ ay nit ñoo ñuy seetaan ay étranger ñooy jógee ay bitim réew di ñëw di seetaan si làmb ji tey lamb mi ngi développé parce que bu ñu nee ba ay wasaara lamb am ay sunu lamb di wax ne kon ñun war nañ gën a góorgóorlu xoolaat suñ bopp gën a yar suñ bopp si kàddu ci jëfin ci côté bu nekk di wax nañ defaraat buñ defaree rek mu baax suñu bañee xuloo ci occasion pour lancer benn message gars yi nañ comprendre Tafa Gueye dafa nekk am dafa bëgg làmb nekk acteur làmb def lu ne ci làmb tey ñun ñëpp bu ñuy bëggee làmb Tafa moo tax muy Tyson muy Bombardier ñun ñëpp dañoo supporté Tapha Gueye ba yàlla boole ñu koy fréquenté tey mu nekk koo xam ne tey buy dugg di wax ci làmb parfois boo comprendre da nga yaakaar leneen mooy tax mais non ñun ay doomam lañ coow lu bëri na moog mais dama ciy profité ma lancé benn message Papa Sow Tapha sa papa la sa juddoog lépp ci kanamam la Fass dafa nekk écurie boo lañ koy wax média yi bëri na mais bu ñu leen dékkee micro am na yoo xam bu leen ko wax man Bombardier sama mag la mu may dégg li ñu sekk maak moom di ko wax ci suuf kenn du ko dégg ci kaw euh, Pape Diém mi fi jógee ma koy jël au passage daan nañ waxtaan maak moom loo xam ne ni day garaaw mais kenn du ko dégg ci média yi am na noonu waxtaanu biir kër la jarul ñu koy génne Fass bu ñu amee seen règlement bees Papa Sow seen doom la bu ñëw nañ ko woo téléphone ne ko ay fiis lii moo fam lii moom mooy xale bi bu mënul bu ko gaay woowul na déplacé wu balaa jël yenn décision yi dem gisante ak ñoom parce que père ba c'est vrai mi koy jàppale mais bu ñu xamee Papa Sow tey écurie Fass ñoo ko doon encadré muy bëre si Modou ñoom ñaar ñoo bokk seen parcelle mais avant ñuy bokk parcelle Papa Sow waa Fass doomu Fass la Modou Lo day jàppale papa papa di ko jàpp seen maam ñoo bokk seen parcelle diggante boobu kenn mënu ci dara ak ñoom franc mais nañ rafetal nañ xool lu gën a rafetal diggante parce que tey wax nga fan lay toog waxtaan mu gën a rafet parce que at xam nga ma ci am solo nekk boo gis rek ci nettal lay mujj mais dañuy nettal na rafet papa Tapha Gueye sa papa li wolof naan. yóbbu ci penc mi. non man de Bamba Dieng mi ngi dégg Mbaye Boy ñi ngi dégg parfois seen rak laa damay décoté mais mais booy bu ñu fontoo garde bu laay la ñuy créé ma képp ñu wax ma sama ñeent dëgg ma génnaat beneen noo xam ne ko def fee may salut au passage aussi waa bureau relation publique ak waa police yëpp li ma lay wax nii xam naa ci dara ñoom leen naa IB mi may dégg ay ñoom capitaine euh, Amidou Mané ak ñoom ko de parfois mm. xam ne nii bi ñuy def face à face bi man ni ma ko jëlee woon xëy na c'était juste pour 4 avril bi ñu leen waaje ma sol tani mais teewul taxul ñu yuux ma wala dafa garaaw booy defati yenn face à face wala kii defal sa civil wala sa may sport nga def li ngay def boo paree nga dem defi leneen n'est-ce juste pour te dire que le linge sale se lave en famille loolu entre ñun dañ koy waxtaan suñu biir te kenn déggul ñu wax ci beneen wax bu ñaaw parce que doomu aadama dafa sensible parce que nit ku nekk dafa am ku la bëgg am ku la bañ tey bu ñuy wax si yow lu baax ki la bëgg day kontaan mais am na ñoom ne ki nga

même bu fa papa di jóge sax na wax ji rafet nañ mën nañ fa jógee de façon professionnelle man écrit Manga 2 la ma lay jox exemple Manga 2 moom ma njëkk a defal licence ma bëri foofu noonu di bëri ba 2011 ba 2015 16 yooyu bi ma waree bëri bëriwaat Bombardier règlement CNG bi interdire à ce que ñaar ñu bokkul écrit di ànd mooy biñ nee Balla Gaye moog Sa Thiès Balla Gaye warul assister Sa Thiès genre mel noonu man ma xam ni su ma nekkee écrit Manga 2 Bombardier war a bëri du ma ko mën assister dama obligé changer sama ñëw fekk si Bombardier écurie Mbour parce que règlement mooy bañ yooyu ci la Manga 2 ne ma am benn problème effectivement xam nga Manga intellectuel aussi moom am problème boobu suñu papa mu ne ma noo garaawul comme que mooy sama aussi normal nga dem jege ko parce que buy bëre da war daan et vice versa di wax ne yooyu yëpp ay affaire xam dañ koy régler dañ koy waxtaane dégg naa école Manga 2 déggoo Martin wax ci déggoo Manga 2 wax pourtant ñun ñëpp dañ koy def mais lan moo tax bu dee yeneen écurie sax bu wut jegee fii rek noonu amul dafa évolué ñun dépassé nañ yooyu papa ñu koy ñaanal yàlla combat bii di ñëw yaa na ko si yàlla may wér mu fekk préparé ni ko war yàlla moo xam ne dogal moo sita ay bër mais problème papa Sow ak Fass man maa ngi ñaan yàlla ñëpp ñu si wax nañ ci wax tee ak dal te xool nuñ ko defaree ba mu rafet parce que papa Sow dafa nekk ko xam te yàlla dem na ba moom Modou Lo ñooy àndi préparé combat pour dëgg àdduna noonu la circonstance la bu journaliste beeg policier bi sax ñoo far fii policier yi sax dus nga gis ñu jàpp nit bindal la wi nga meronte ko après fu ngeen mujjee kafre essence ante numéro ngeen doon ay xarit loolu loolu mooy àdduna nañ bàyyi yooyu. kon Big Pato bëgg naa wax ni ñi bokk teen ñooy laxasooy goj kon sëñ Bass noonu la demee Big Pato mooy lan turu Big Pato ah Big Pato tur bi fu mu jógee bi ma doon nekkee xale di def kënp dama am benn démonstration bu doon def yaraax man ak Jacques Mendy ak Sidi Maria Mendy ma koy wax sa góor ñu demoon yaraax léegi sa waay day jël benn coup ci kaw rek ma tourné baree ko du léegi grand bi ñu àndaloon benn commande marin la woon bate na sàmm ñu koy Pato mu ne waaw ça c'est Pato mu ne ma yow yow léegi yaay Pato loolu la foofu tur Pato bi génnee léegi nag comme que man dafa gàttoon <laughs> moom ñoom ñu ne moom mooy small Pato daan nekk eh, école di théâtre yëpp CS4 xam nga man dama mënoon théâtre nag CS4 ak lycée dama mënoon théâtre gars yi nekk Big Pato ay ñoom Marius Ndiaye bi nekk observateur ma leen saluer passage ak groupe Serka Fallou ñoom Dior ak Moussa Gueye xarit sama doomu ndey Moussa Gueye sama benn dama koy saluer ci interview bi parce que dafa nekk benn prof bu nekkoon ñun doon def SVT ak mat man dama naan jàng mu jox ma livre mat jox ma livre SVT cour particulier sama fay ak sama fayal kenn mosu ko xam Moussa Gueye maa ngi lay saluer gor nga gar mi yàgg ñëw dimbali loolu du ma ko mos fàtte mu daal ak sama yeneen prof yi ma mos jàngal yëpp sa dodonoor ba CM4 ba lii sa Demba Diop ay ñoom yaay yëpp sama ku ma mos a jàngal rek maa ngi lay fàttali di la bàyyi xel di gërëm aussi sama nijaay Babacar Ndaw imam Ndaw di ko wax yàlla na ko yàlla may wér ba mu jógaat moo ko waa yi nekk Colobane ñoom tonto Maas ay ñoom tonto Adama Diop ñoom ñëpp maa leen nuyu au passage sama ñoom tata tata jaxu sama séeri sama tata sama séeri <laughs> waaw yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la Big Pato wax waaye mu mu béggee suñu liggéey am kontaante ak mbégte yëkkati yére bu rafet jox sañ Bass yëkkati yëre bu rafet jox ma ñu defati ko ak beneen mbër boobu nu mu tuddati. min gay ki min gay ki tamit mu yëkkati chemise yu rafet jox ñu ku ci nekk jaar ñu ñun ñu dugg si fii ci auto école bi nga laaj ma ba xam am naa permis ma ne la waaw nga ni sañ Bass mu ne la déedéet nga ni ko indi ma defal la permis waaw maa ko may permis parce que permis bi ku permis xam nga. lu bësee rek bëseeru lépp man maa la ko may parce que man tamit damaa bëgg di joxe chaque jour le bon exemple parce que doomu aadama bi nga xam day ñëw liggéey ak yow xam nga kii tey bu nit jàppee danaa la ci big pato jëm parce que chaque fois nit war a ñëw ci man nit jàpp police jàpp ko mën ko ci big pato jëm man sama ngor mayu tey nga ñëw ci man te nekkoo en règle mm. léegi pour jàppale la jàppale samay collègue moo tax ma may la permis boobu permis boobu maa la ko may ak sama waa auto école leader bi nga xam ne dañ may jàppale nekk sama sponsor aussi parce que ñun chaque jour dañuy bëgg a wan nit nekk leen ci yoon bu ngeen nekkee ci yoon nag li ci day négocier tey muy policier muy gendarme bi ñun soxlawuñ ci civil bi dara boo nekkee en règle dañ lay contrôler bàyyi nga dem ah aussi damay saluer sama mbokk yi gendarme yi ak policier am na joan dañ permis boobu noonu maa leen ko jox ci xol bu sedd guy di wax ni képp ku bokk si yéen bu bëggee permis bu ñëwee fii nii dañ ko defal ci permis ci dans les délais réglementaires mais nag damay lancer benn message am na benn jour benn waaye woo ma benn waaye da koo dóor ci permis bi ne ko lu mu ne non dama kooku dafa ñëwoon vacances bëgg permis 15 jours ma ne ko yow permis 15 jours législation Sénégal permis 15 jours nan nga koy nangoo mais nañ bàyyi bëgg lu yomb man la message bi daf maa concerné concerne Sénégal yëpp képp ku leen wax dinaa defal papier administration demal ca texte ba ca gouvernement même Google boo duggee nañ la wax texte réglementaire yi nañuy topp yoon li yoon def bu ñu ko defee duñu sonn Baye Bassirou tey yow ñëw nga ñu jël sa photocopie war na defal permis boo yoree sa permis génne dawal comme ñëpp kan moo lay sonal lii neexul ma ñu lii moo ñuy teel nekk ci jàmm wasaare nag xam nga benn affaire dafa garaaw bi kan moo ndeysaan loolu yim ñëpp du yow yaa ko mujjee laaj xanaa ñu koy laaj DG bi <laughs> borom États-Unis di wax tur bi fu mu jugee parce que tur bi du yow yaa ma ko njëkk a laaj pa mag ñu bari ci làmb nee nañ ma turu wasaar kan moo ko xalaat ak fan la jógee. xam nga wasaar la moo ci garaaw. yéen lépp lu nëbboon ci yéen lay feeñee. lu gars yi denc yéen a koy génne. Ah, xool fi ngeen ma loqate <laughs> sama kër laa leen dawee ngeen mën a nii di ma wër ah, mais affaire espionnage yi ngeen def man damaa jommi de booy bi laqatu naa la fu ne nga fexe ba génn ma di wax ni gars yi nga def lay xewee ñu wasaare ko mu tas àdduna di profité nag nuyu waa diaspora bi waa Maroc sama fant bu na États-Unis ñoom Bamba ak Mohamed Diallo Adama Diop Italie ay ñoom Zeyna ak waa Paris mais waa États-Unis nag dafa am lu xaw gis nga maire Koumba ak madame Mbaye ak ñoom grand euh, kii Fatma euh, jëkkëru Fatma Fatma bi ñoom Jum grand Jum Habib Jum combat bi dañoo mer ne seen combat la waa États-Unis ñoo ñoo noor a jënd samay billets yëpp sans compter nag Maodo bi nekk port ak ñoom Moustapha Mbengue transfert yi transfert aussi dañoo mer nee nañ combat bi billets seen ñoo koy jënd maa ngi wax ni képp kuy fan sa Big Pato na nga parce que le premier euh, euh, juin euh, du wax date bi parce que gars dañoo garaaw mois de juin bi da bëgg naa une semaine avant combat bi ñu jënd suñu billet parce que dama a incha allah rabbi jërëjëf Big am na ko xam ne nag du ma ko fàtte mention spéciale pour moom. day def ci com mooy Fat Bindu Koné. war a defar ay tiset ay poster pour man. Fat Bindu yaa ma ni combat bi sa combat la combat boog combat baa bu dara yomb di wax waa urbanisme aussi na ngeen pare. maître Malick Sall sama papa <laughs> du ma la wax dara xam nga li nga daan def maître monsieur ma Diop mais nag Matar Ba spécialement moom nee na maa ngi aussi ñu bokk ministère sport combat bi sa combat la de yaag Cheikhou Cissé boo combat bi seen combat ma Salif nii ak ñoom Pape Kouly Diop ñoom seen combat ak Birame Espagne Ablaye Sy di woo nag waa leader waa leader nag damaa bëgg ñu defar 1017 fi nga ma fekk nii bëgg naa ñu defar 1017 ñëpp xam ne ñu ñoo leader auto école bi bomb ci réew mi Sénégal jëm kanam. jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ni moom la Big Pato wax kontaan nañ bu baax a baax ci moom waaye di sant bu baax a baax ak gërëm fii ñu nekk muy auto école la leader nga xam ne auto auto école la boo xamante ni lépp lu waay bëgg. ci PS war nañ la koo mën a wutal. ndeysaan Abdou Diop bu Aslem. Jili création Abdou Diop bu Aslem ak eh. Madiop Diop maire Grand Yoff aussi jabaram Kumba maa ngi koy sel yëpp barki démb la ma ñëwal bi yére bu rafet solo guma ko vraiment ak euh, dabaax couture man dama bëri xam nga ñëpp sama xarit mais dafa am comme Sasa beauty fashion euh, kii studio euh, le premier dégg naa a solol di wax ni gars yi gis nga bi padong noonu mbëru askan bi mbëru ñëpp la mais ceen Abdourahmane Bari bu boggal ak Thierno Seydou Nourou Tall ma woowaat la Thierno Seydou Nourou Tall ak famille Omarien yëpp combat bi seen combat la ko doon ko bam bandiraɓe alpuron midi salminom fof ko alpularen <laughs> la jërë ngeen mbokk yi Aladji am nga soxla Big Pato ngay bëreel te mbëru askan la mbëru réew la mbëru policier la mbëru képp koo xamante ni